mbokk yeeg xarit yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te leen di ñaanal jàmm ju sax dàkk ni ko ñaanal mbooleem internet yu bàyyi xel solution TV solution info dem nañ ba diwaanu Thiès yi benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen càmm ñaanal ko nag suñu sëriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ la Lahat Mbàkke yàlla suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram te koy ñaanal mbooleem xaalif yi ci biir réew mi yëpp l'émission ne tey ci ñu fa fas yéene jàkkaarloog Alaaji Issa Ndiogou nga ñu bàyyi ko nu yokk internet yi ñuy suivre rawatina nag waa diaspora bi nga xam ne saay su nekk dañ leen di bàyyi xel Alaaji kàddu gaa ngi noonu. ma jigéen ñi ngi lay fay di am mbégte ak kontaante ci yow dem ba Touba Mbacke nuyu xalif général des Mourides sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér. waaye ñu ngi nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke. Mhm. ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ko ziyaar nuyu baax sëriñ Xaadim la ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm. Mhm. nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarim wax la nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziyaar mhm. eh, di nuyu bu baax ak a ziyaar. ñi nga xam ne ñoo nekk ci xarala gi yëpp ñu ngi leen di nuyu sénégalais yi nekk ci bitim réew ak ñu nekk ci biir réew alaaji seetaan ni xuloo ay alaaji man damaa ragal xuloo ko dama <laughs> lay dem bi seetaan ni xam nga kat boo demee kalandoo ci suuf wàccoon naa ci suuf ma ndax da nga <laughs> seetaan seetaan xuloo moom defe naa ni doy na waar daal ëpp na waar seetaan moom kéwul eh. macha allah waaw ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di nuyu nag ñëpp ñuy seetaan di. wax ne nag tey comme ni ñu ko baaxoo di defee rek l' émission des émissions daañu waxtaanee ki nga xamante ne nii moo di Pape Ndiaye nekk fii ci Walfadjri am na ay kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci élection présidentielle yi nga xamante ne nii dañoo proposé njiitu réew mi di Sénégal ngir rek ñu fas yéene ko amal ci le 2 juin waaye nag moom nee na. le 2 juin nekkul date bi gën ndaxte ñëpp xam nañ ni euh, weeru juin boo seetee nawet bi day daal di dugg si rawatina nag ci côté sud bi looloo war a tax ñu bàyyi ba le 15 décembre bi nga xamante ne ni moom lañ jëkkoon proposé comme date buñ ca noppee ànd ak Ahmed Khalifa Niass moom nag. demoon na ci confrontation bi nga xamante ne nii bu bisu ngóone bu des moom moo koy amal am na nag euh, classement bi nga xamante ne nii laajee nañ ko ñi nga xamante ne nii ñoo di candidat yi jotoon a jàll te fas yéene woon a dem ci élection yi ñu ni waaye nag biñ ko laajee li jaaxal Sénégalais yi rek moom nee na xamul Bassirou Diomaye fay léegi léegi daañ leen ne tegtal waxtaan bu mu sëkk ak bisu ngóone ñu jeexalee ko ak président Ousmane Sonko moom nag am na loo xamante ne nii tontu la ñuy di wër ba dugg ci euh, réseaux sociaux yi gis ko mu nekkoon ay kàddu yoo xamante ne ni waxoon na ko bu yàgg-yàgg euh, méngoog nag ak di xew jamono ji ci réseaux sociaux yi leader yi xasaka ngaañ ñi di sap ñi nga xamante ne ni ñoo di jeunes yi euh, patriotes yi moom nag am na ay kàddu yu mu ci yëkkati wax ko ci lider yi léegi léegi lay doon incha allahu rabbi dañu daal di xuus ci waxtaan bi rek ànd ak ak Pape Ndiaye mi nga xamante ne ni kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci élection yu fas yéene dagmal ñu dellusiwaat. juin ak juillet période examen la. 15 décembre ni ñu def ba génnee ko mars parce que koor la ak avril parce que paga korité nga fa. Mhm. nañ ko génnee waat juillet génnee ko juin génnee ko juillet parce que période examen la buñ ko yóbbu août buñ ko yóbbu septembre parce que day taw. Ah. ñu yóbbu ko après hivernage ñu fixé ko fa. loolu foofu fan fan exactement. hivernage saison de pluie kañ lay jeex. du septembre lay jeex. wala octobre au plus tard. donc moo tax man ma jàpp ni. na doon après élection yi rek. octobre wala novembre wala décembre na doon après après. hivernage kon kon dina jege décembre bi. na doon période hivernage man loolu mooy. Ah, d'accord mooy sa xelaat. am nga xam xel xel boo fasoo du question de loi xel après bi. Mhm. a ah, nga bàyyi de. di nga déglu de parce que léegi non dama la bàyyi nga wax foog ma ruube la parce que li nga wax nii nii dama indi sama position yow d'accord ci yow nga mën ko kii ma ni man gisuma dina fi am avant hivernage gëwuma bu amee dina ma bett lool dina ma jaar ay Aïcha mi ngi noonu alaaji lii la Papa Ndiaye wax euh, mel na ni nag bu ñu toppee programme yi nga xamante ne nii Sénégal dina ko amal est-ce dina fi am parce que nee na entre juin juillet ñëpp xam nañ ni ci la élèves yi di def seen évaluation yeeg examen yi bu ñu génnee ci loolu nawet bi day daal di dugg moom daal àpp na mbir mi ba décembre. waaw macha allah euh, xalaatam la joxe. Euh, donc ñu nit dañuy joxe sunu xalaat rek ci kaw xalaatam du dëkk parce que àddina moom noonu la euh, joxe na gis-gisam waaye élection yi ñuy wax xale yi bu jàngee ba ami diplôme te dëkk bi réglé wut seen diplôme yi du am njariñ kon defe naa ni ñu puus mbirum examen yi lijjanti réew mi nga xam ne ci la mbiru xale yi di lijjanti ko mooy li gën du dëgg parce que dañoo yegg ca njobbaxtal ga maanaam am réew bu ñu ca nekk réew mi li tax muy doon réew njàng ak yooyu yëpp ay banqaas la ci réew mi njàng sante sécurité mbay càmm yooyu yëpp nag dafa am koo xam ni moom moo war a nekk ci bopp réew ma di ko doxal loolu la ñuy wax du dëgg loolu nag mooy li ëpp solo ci jamono jiñ toll nii que ni ñu naan ñu ay élec ay examen donte examen am na solo lool waaw clan waaw mais bu fekkee ne dañ cee war a puus dañuy puus examen yi du dëkk parce que examen yi benn partie la soxal maanaam xale yi examen ak ñuy def classe d'examen du dëkk mais bi sénégalais yëpp la soxal du dëkk te lii ngir nekkam dafay aju ci nekku kii wala comprendre li ma la bëgg wax voilà donc kon loolu mooy priorité priorité bi mooy ñu amal ay élection am président du dëkk boobu mooy priorité moom comme que élection rek la ma indil ko njàng rek examen la ma indil comme obstacle man waaw noonu même comme xam nga yi avant ñu yegg ci nawet bi daf ne bu ñu rombee bu examen yi rombee nawet day ñëw kon léegi examen boobu euh, mënut a tere élection di am maanaam bu fekkee ne dañu teg ñaar yi ci pénc mi ñu ne léegi dañuy puus examen bi way laa dañuy puus kii bi xale yi ci seen jëmmi bopp ñoom ñooy njëkk a taxaw ne nañ puus examen bi parce que c'est pas la première fois nag examen ñu puus ko mais élection présidentielle defe naa ni mi ngi ñuy soog a daal donc jàpp naa ne daal li nga xamante ni bi mooy li gën comme que ay proposition lay def proposition la joxe examen moom war sa doon obstacle examen war sa doon obstacle benn feet ci feet yi tamit war sa doon obstacle pour ñu organiser ay élection bu dee dañ koo bëgg a kese koor gi sax du prétexte def nañ fi élection yoo xamante ni bi 2000 entre deux tours yi tabaski dafa amoon ci la mhm. Mamadou Diop Decroix bi fi kii parti socialist bi waxee ne euh, bu jondoo yi demee ba Mamadou Diop Decroix daal di wax ne ñooñu buñ demee mën a sensibiliser <coughs> seen ay mbokk seeni mbokk bu ko defee ñu mën a voter kii bi defe naa ni élection yooyu li Ablaye Wade am ci monde rural bi defe naa ni tabaski gee ko may mhm. waaw du dëgg kon bu dee taw tamit élection yi ñu génn mhm. Eh, gis nga bi ñoom Ousmane Sonko di campagne muy taw. Mm-hmm. defe naa ni ci nawet lañ ko organiser yooyu yëpp du lay li am solo rek mooy nañu amal élection yi ci dat bi nu mu gën a gaawe keneen kuy wax leneen nag mm-hmm. eh, peut-être say waxi bopp ngay wax mm-hmm. waaye jàpp naa ni moom li gën ci réew mi ci jamono juñ toll ni situation bi ñu nekk si du situation bu baax réew mi dafa tagga témbe comprendre donc li gën nag mooy ñu falum njiit mu tàmbalee doxal ngir réew mi dellu mel na meloon loolu moom képp kuy xëcc rek da nga war a xëcc ñu jëm ci lool te loolu je pense que ni. Hmm. Euh, mooy li nga xam ne mooy li gën élection dina fi gëj la. xam nga bu ay xalaatam rek la wax ay kiyom la wax. Hmm. xalaatam la wax. waaw mais parents ay nit joxe xalaat nga ne ko sa xalaat bi baaxul. Ah, nañ jàpp rek ne benn la ci xalaat yi baaxul xalaatam baaxul. Ah, donc ndax xalaataat te xam ni élection yi élection présidentielle la du dëkk waaw xalaat boobu moom euh, euh, du bu baax d'accord mi ngi noonu ah. <laughs> jërëjëf euh, am na solo macha allah ñu dem nag ànd ak ki nga xamante ni nii moo di Ahmed xalifa Niass ñàkk xam gi mu ñàkk xam ki nga xamante ne ni moo di Bassirou Diomaye laaj nañ ko itam ci yeneen kandidaa yi ñu déglu ko tel dellusi. Hmm. mais Habib Sy égal Ablaye Wade. Masali. kuy kooku. ah kon Anta Babacar Ngom. de suma doom la. mën na oui ou non. waaw mën na kay. Aïda Mbodj. Abdou euh, ret à na. Aïda Mbodj. à la traité na. Thierno Alassane Sall. non. mënu ko. Ah. docteur Boubacar Camara. docteur Boubacar Camara. waaw mën na ko. Idrissa Seck. waaw. Bassirou Diomaye Faye. boo xaw ma ko. Bassirou Diomaye Faye. xaw ma ko. d' accord xaw ma ko. ki xew gën la xew yow. man. waaw ah kon de booy boo déglu tàggeem. Ah. man ku ma gën a xew rek. dem fa ñuy xewee. Khalifa Sall. fit mi ma am moom ci yow laa ko jëlee. mën na ko. Ah. mën Abdallah Dionne. bu baax. Serigne Boub. waaw. Mame Boye Diao. waaw. Ousmane Sonko. déedéet. <laughs> père jëlal sama daal lii papi. Ousmane Ousmane Sonko nga leen doon sama kër ñaari yoon. yenn fois soxor nag. waaw déedéet dama ne kii xaw ma ko yéen xaw ma ko Ousmane Sonko laa laaj oui ou Sonko mënta yor réew mi. fan nga ko teg père. xanaa bu nit ubbee wax ubbee gémmiñ nga ubbi sa gémmiñ. Mhm. loo koy dégloo sa gémmiñ. yow ñaari nopp nga am. Mm-hmm. da ngay déglu ñaari yoon doo wax benn yoon. Mm-hmm. man de duma wax te dégluwu leen. Maître El Hadj Diouf. paas damay paas. <laughs> boo paasoon suba yow lay direct. Pape Djibril Fall. teel na teel na. mais père Aliou Mamadou Diabou pur. xaw ma ko maa ngi door a dégg tur woowu. waaw yow père yow. père avec le pouvoir ou bien avec l'opposition. Mamadou mu njëkk ma laa xam. père Aliou Mamadou Diabou pur. daa ah, inna illallah. waa kii 19 candidat yi xaaj bi yëpp ñu nga xam ne ñooy bés bu ayca mi ngi noonu yi dégg nga euh, père Ahmed Khalifa Niass li mu wax moom dafa mel ni euh, ñiy fare ci côté pouvoir bi daal la gën a may ndax la gën a xam sax euh, peut-être comme ni mu waxee ma déggee si nag mu laaj ko mbirum ay dëmbooj mu ne moom dem na retraite te pourtant su ma juumul ay Amadou Ba Idrissa Seck maguñu Aïda Mbodj ba muy nangu ñoom seen capacité di ko bañal Aïda Mbodj euh, surtout li mu wax ci Ousmane Sonko ne mënul yore réew mekk ñàkk xamam bi mu ñàkk xam Aline Mamadou Dia ak Bassirou Diomaye waaw macha naa ne foofu rek bi nga fa duggee kii nga xam nga Habib Sy moom moom ak Aïda Mbodj te boo nangulee Habib Sy rek kon Aïda Mbodj kii mën nga ko nangul moom dafa waroon a xam sax ne mm-hmm. Aïda Mbodj nekkul ci candidat yi bokku ci Eh, kon defe naa ni bu ñuy wax ci ñi nga xam ni kii xam nga dañu ko defaaleel ay pièges ci biir ci biir waa ci biir kii quoi c'est que yooyu yëpp parrainage journalistes yi dañuy def dara nga defee ne dañuy kii mais parrainage c'est pour xoolaale ndax ki ñuy waxal exactement xam na li xew waaw moo tax boo gisee am na ay ndëgg sërëx ay dëmboo ci ndëgg sërëx yi la masal yi ci ndëgg sërëx yi la mhm. parce que ñooñu bi mu leen limee rek bu fekkoon ne mi ngi au da koy wax ne ñooñu duñu candidat ba may laaj laaj ma ci candidat yi bu ko defee ma wax ci candidat yi donc moo tax bu waxee ne euh, xamul ñi waaw loolu mooy lii yoon xamut Bassirou Diomaye dama koy nangul xamul Ousmane Sonko dama ko koy nangul ah, waaw boo ko xamul Aliou Mamadou Dia loolu aussi tamit dama ko koy nangul hmm, waaw parce ñi mu bokkal mbuus la nangu ne xam na leen maanaam dafa am ci biir wax ji ñi nga xam ne man ak ñoom ñoo bokk mbuus ñoo bokk nu ma bëggee réew mi doxee ko ñooñu laa xam waaw loolu seen normal paren saay nit ki parce que ama amet moom nëbbatuut ci fi mu ne ak ci li muy dox moom moom nëbbatuut hmm. xam nga ñeneen moom dañuy nëbbatoog di làqatu di jàdd hmm. mais moom maanaam dafa wax ne lii ma nekk nii man maa ngi ci maanaam ku mën a doxal système bi maanaam système bi nga xam ne mi ngi dox nii bon nangu na laa xam waaye du ma defal promotion koo xam ni bokkuma ak moom gis-gis bokkuma ak moom nu système di doxe waaw loolu moo tax maanaam euh, mu ignorer leen waaw bu nee xaw ma ko xaw xamu leen c'est parce que peut-être mënut a jëflante ak ñoom peut-être ni nga xamante ni bi noonu la bëgg yëf yi euh, di doxee waaw mu xamoon nag Basiiru man moo may tiital parce que bu ne woon xam na ko moom laa mën nga poser ci mais bu ne tamit xam naa Sonko laa da mën na la kii quoi mais le fait que mu ne leen xaw ma leen maanaam ci biir xaw ma leen daf leen a setalaale maanaam dafa lu nit ñi di séentu ci Basiru ak Sonko. maanaam parce que bu ne woon xam naa Basiru xaw ma Basiru xam naa Sonko sax bu boobaa mën nga jiixi jaax mais ñoom ñëpp jël na leen dugal leen ci saako loolu nag mooy firi Basirooy Sonko Sonkooy loolu wan wane na ko ci biir wax ji mhm. que ni ñaar ñi duñu ñaar kenn lañ parce que li tax ma xarab kii rek mënumaa nangu kee mhm. moo tax biñ ñee ko Basiir mu ne xaw ma ko biñ ñëwee ci soxna Sonko it li mu yëg ci Basiiru rek lay yëg ci Sonko mhm. moo tax it mu sànni ko ne xaw ko kon loolu euh, boo seetee tamit ñi nga xam ni gën nañoo jege Basiiru Jomaay Fay ak Ousmane Sonko daf leen xarab mooy Aïda Mbodj na retraité euh, Aliou du Dia mu ne xaw ma ko dugal ko ci saako boobu Pape Djibril Fall mu ne dafa teel kon nangul na ko ne mm. euh, kii na maanaam nangul boobu mu ko nangul mm. boobu euh, dafa nekk loo xamante maanaam bañu ko waaye euh, teel na mais teel na te conseil constitutionnel moom lu mu waaw xam nga moom ah, teel na teel na teel na ci moom teel na teel na waaw wax na dëgg teel na ci moom ci ci ci moom gis-gisam laa wax teel na ci moom waaye. waaye boo jëlee. les autres rek ngay xool da ngay xool képp koo xam ni même nangul bi mu nangul Habib si ne Habib mooy wàdd rek. comprendre nga mais war na delloowaat lenn parce que Habib li ko jàllale mu nekk candidat xam na ni euh, ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko ko jàllale mu nekk candidat. war na xam ni même bu fekkonte ni bii na mu jàppee woon Habib si ak la mu yaakaaroon loolu mënutu la dox ci Habib Sy te ñoom Habib Sy li tax ko tànn ko xam nañ nit ki mën ngaa nekk ak nit di ko liggéeyal mais xam nga Habib Sy boo boo seetloo kenn du ko fi joxañ ci alal ju bari joo xamante ni bii am na ko wala def na lii wala du nga dégg ak njabootam ñu lay wax naan la doomam yor na fi alal ju dul jeex wala am na lii wala am na lële xam nga yooyu déggoo ko ci Habib si te Habib Sy nekkoon na fi occupé na fi ay postes yoo xamante ni bi poste yu kii la deman na ba nekk directeur ab Ablaye wàdd kon Habib si am na jaar-jaar waaw mais jaar-jaar mais est-ce que jariñoo na réew mi comme ni nga xamante ni bi certaines personnes noonu lañ jariñoo réew mi est-ce que nekkul ni dafa nekkoon di jariñ réew mi parce que dafa am euh, benn ku ma mës wax ne ma euh, maanaam bi Habib si nekkee ci ndënd yi Eh, parce que loolu sax ci li tax ma naw Habib la bokk quoi. Mm. mu ne ma mu ne ma Habib euh, du maye. ma ne ko ah. du maye mu ne ma waaw mu ne ma noonu li mu lay may du bari. loolu la ma wax quoi mu ne ma li mu lay may du bari. xam nga nit bu fekkente ni bi da jàpp jàpp yàlla dafa jàpp nga peut-être nga yem ci sa salaire ak yooyu maanaam nga gis ñeneen ñoo xamante ni occupé wuñu yenn post yi di maye nenn ni xaalis. Mm-hmm. moom muy mayee nenn li peut-être li mu am la lay may mais gërëmu ko ci mais da ko cee xarab mais xarab boobu man moom dama ko jàngatee ne mm-hmm. euh, peut-être que ni waa ji nekkul kuy yor alalu réew mi di ko sëllaxaate mm-hmm. parce que parensaay li nga moom boo koy mayee mm-hmm. euh, nga xam ni sa alal la di nga xam ni nga ciy mayee ko ak ni nga ciy joxe mais bu fekkente ni bi yow da ngay sëq rek di di tibb mm. rek. di loolu. Mm. peut-être doonut li nga xamante ni bii mooy sa kii quoi. comprendre nga. moo tax par rapport ak euh, buñ joon ak consort yan capacité nga jàpp moom la gis ci ñoom ba mu war leen a mën a. capacité lii fi rek yëf yi système bi ni muy doxee nii rek maanaam na système bi dox parce que ñooñ système bi. gisuñu lu dul lii fi ne parce que changement xam nga fi mu toll nii Sénégal lan la bëgg a maanaam loolu dafa metti maanaam da nga mel ni rek dindi. ab yére teg ko fële yére boo xamante ni moom lañ la xamee woon ni nga daan doxee maanaam am na nit ñoo xamante ni moom lañ koy nga bëgg ko futti sa teg fële nekk ci beneen doxalin loolu nag du ñëpp a ko ñeme xam nga doo déggee ñu naan la mag du tuxu mag du lii mag ñoom nag bon da ngay mën a comprendre tamit que ni âge bi ñu am mm-hmm. pour ñu adopté wu nangu du yomb parce que attention jamonoy Abdou Diouf xale yi ñoom ñoo fipp mm-hmm. nangul Ablaye Wade mooy li nga xamante ni mooy xale yi daan topp Ablaye Wade bi mu nekk bi ñu nekkee xale bi ñu matee voté mooy li Cheikh Anta Diop waxoon mm-hmm. bi ñu matee voté rek ñoo fal Ablaye Wade mais mag ñi duñu ko woon fal wa ilaa mag ñu bari ànduñu woon ak Ablaye Wade loolu tamit fi mu toll nii ba léegi moom moo ne ñoom fi mu toll nii lii ñu nekk nii ci lañ ne mooy yenn yi nga xam ni moo lay topp jàmm kii naan mag du tuxu mag du lii pareen saay am na lu bari loo xam ne bi boo ko amoon mhm. bëgg a jekki-jekki euh, ne sa yaay ñëwal ñu dem wala sa papa nga ne ko ñëwal ñu dem ci tel bërëb te mu ne la du ma dem mhm. parce que dañ naan la mag du mhm. liiw ak et cetera comprendre yooyu mooy yi nga xamante ni bi moom moo leen dal fi mu toll nii ñoom lii fi nekk nii ni muy doxee nii baax na depuis mille neuf cent soixante ba nëgëni ñu ngi ciy doxal donc lii bu changé ban poste dañuy perdre repère dootu ñu xam fu ñuy teg seen tànk ana kan ak kan la ñuy tey jii situation bi ni mu demee nii bu ñee këtt na joon problème am xam nañ ku ñuy woo am nañ fu ñu mën a régler seen problème am na nu ñu mën a defee mbiri comprendre mm-hmm. ak problème bu ñu mën a am am nañu ki léegi nag bu loolu soppeekoo mm. léegi mën nañu réer mën nañu nekk ci dëkk bi xanaa xamoo ni nguur gi bés bu daan woon di nga fi gis ñu màggat màggat yu gaaw gaaw a gaaw a gaaw ah. wallaay di nga di nga gisaat nit ci télé ñaari at ci kanam nga gisaat nit ci tele nga ne xanaa du kii kañ. waaw ah am na ñu bari fi mu toll ni système bee leen téere moo tax ñu maintien de ka leen di gis defe ne du ñu paa wala duñu kii mais bis <laughs> bu basculé nga gis ni di nga gis ni kii bi loolu quoi <laughs> waaw fi mu toll ni ñoom dañu topp mbir mi rek mm-hmm. euh, mbir mi neex ma mm-hmm. ñu ngi loolu di gundaandaat mm-hmm. waaye nag xale yi moom mbir mi neexut ci moom quoi xale yi moom soxla nañu changement day dem am fooy toll sax da bàyyee gone yi nag mhm. parce que loolu mooy nit ñu jeexale ko nag ak euh, Ousmane Sonko mi nga xamante ne ni kàddu yi mu yëkkati woon lu yàgg lool la te mu méngook nag euh, li xew jamono ci ñu déglu ko te si te ñun dañ leen bàyyi jeunes parce que que duñ ñu nawloowuñ yàlla def loolu on ne boxe pas dans la bàyyi nañ leen rek jeunes man xam naa ni di ngeen seen problème. <laughs> Euh, alaaji dégg nga ko de nee na euh, ni ñuy sabee ci moom tout le temps soi-disant opposant yooyu muy tudd euh, nee na bàyyi na leen ak gone yi te dafa mel ni loolu moo am tey da ngay seetlu fan yi ni ñu leen sonalee surtout leader yi yenn leader yi mais da ngay gis jeunes yi ñoom tamit ni ñuy fippo di di di di di wane seen bopp alors que kañuy responsable bi ñuy wax sax moom ma nga ca kaso ba tëdd jàpp ñam borom. waa xam nga Ousmane Sonko boo seetee. Euh, dafa am ay discours yoo xamante ne bi def na ko yu wër Afrique man loolu boo seetee man parfois daan naa dégg ñu naan la discours Lumumba discours Thomas Sankara discours kii mais Ousmane Sonko euh, yoragut yenn yi ci kii mais ay discours am wër Afrique moo lay wan ne la euh, dimension bi mu ne Euh, sunu mbokk politiciens yi newuñu fi parce que tey ji amul benn politicien boo xamante ni yaa ngi koy cité ci jamono jiñ toll ni ñi fi nekk nii ñu fi am discours bi nga xam moom la Ousmane Sonko jagleel jeunesse bi ak li nga xamante ni bi moom la wax nga xam ni xale yu ndaw ndawaan yi sax dañuy taxaw di wax li nga xam ne moo ñu lié entre Ousmane Sonko ak ndaw ñi li leen lié nga xamante ni bii nit ñi dañuy toog sax di ko jàngantu di ko waxantu nga gis discours boobu ni nga xam na la moo lay wan ne la euh, visionnaire la maanaam tey jii lii nga xam ne moom nga indi nii mu mel ni tey parce que tey jii mhm. dafa mel ni Ousmane Sonko mu ngi ci bitti di tontu ñi nga xam ni ci situation bi ñi ngi koy tuumaal mu tontu leen loolu nekk loo xamante ni bii nag maanaam ay waxi démbam maanaam day tontu ñi nga xamante ni bii tey ñooy nooni démbam ak nooni tayam loolu nag c'est très important maanaam wax loo xam ni tontu nga say nooni démb parce que bi muy am ci situation bi loolu moo fi nekkoon te loolu musta soppeeku ba léegi loolu mooy continuer di dox moo tax tey nga mën a jël la mu tontu woon ci année nangam nga mën koo indi tey actualiser waat ko mu méngoog jamono mooy wane ni mbir mi moom tontu bi moom du soppeeku parce que chaque jour noon yi ni ñuy fonctionner benn fonctionnement kese la nii rek la ñuy fonctionner moo taxit tontu bi day méngoo xam nga yàlla dafa def. Euh, li xew xew ñi may massawu Maymuna ci li nga xam ni dal na ko parce que amul fenn fu mu yëkkatee kàddu moom mm. wala ñenn ci waa rajoom wala teleem mm. daal de joxoñ kenn defuñu defuñu ko mais ay homme politique ñoom ñoo ñëw bëgg a utiliser. xew-xew bi jëmale ko ci mbirum politique mais ñoom déggagoo leen benn yoon ñu orienté ko kii parce que nit ñi nga dégg ñëpp ay homme politique lañ homme politique yooyu nag enquête yi nga xam ne mi ngi commencé di génn mi ngi mel ni mi ngi leen di duma parce que ñi ngi leen di tiiñal jàpp naa ni jamono jiñ toll nii am na loo xamante ni bi waxoon nañ ko mhm. mais regretté nañ li ñu waxoon parce que fi mu toll nii seeni wax bëggatuñoo dégg ku leen koy tegal parce que fekk enquête yaa ngi gën di reer rek mu di leen duma loolu nag Ousmane ko moom ay mbiram euh, maanaam dafa am loo xam ne bu la ko suñu borom mayee faaw nga nangu nit ñi di wax ci yow kën ni ñuy wax ci yow lu bon que ni ñuy wax ci yow lu baax mais fi muy mujjee rek lépp lu ñu sànni woon ci yow muy lu bon ak mbaax lay mujj soppeeku lu lay defaral maanaam ki la ko sànni woon ci jamono ji mu koy sànneeku mën nañu bañ a décortiquer yëg ni kiikat li lii tax muy def lii waaye buy wëlbatiku ci moom ñëpp dinañ xam kii ban genre nit la donc loolu dafa nekk loo xamante ni bi euh, dafa am solo lool maanaam euh, lu bari luñ koy taqal sunu borom ak koy leeralal loolu nag moo tax man damay wax ne politiciens man su ma doon ñoom danaa moytu di di taqal Ousmane Sonko parce que lu du dëgg dinaa du dinaa ju man di ko ko jëmale waaw dinaa ju parce que liñ ko taqal lii yëpp ay détails la mais liñ ko taqal li gën a rëy wóolu yaa ngi dégg liñ ko taqal li gën a rëy nga xamante ni bi tey kuñ ko taqal rek nit ñi dañ naan ca mbay mm-hmm. biñ ko taqalee ci la nit ñi gën a accroché wu ci moom mm-hmm. gën a koo jàpp mm-hmm. kon loolu war nañoo yëg ni mbir yi doona doonatut mbiru nit mais mbiru yàlla la parce que moom ci jëmmi boppam sax xamut yëf yi lan la donc am na yoo xamante ni bi suñu borom moo koy namm ci nit di ko jaarle nag ci ay kii mm-hmm. maanaam moo taxit fépp nga koy tudd que ni lu xew rek di nga ko tudd mm-hmm. maanaam lu xew euh, fële moom la lu xew fee moom la lu xew ci lu xew ci journaliste yi Ousmane Sonko la lu xew ci politique bi Ousmane Sonko la lu xew ci leneen maanaam lépp lu xew rek moom la moom lañ koy tuuma pare nañ fépp nag ndax duñu nangu ah. mukk mu ñu koy tax waaw loolu waaw bi mu am ci moom bi ah. mu am ci jeunesse bi mi ngi koy tudd te vidéo bii lu yàgg la mais mm-hmm. tey la xale yi gën a am détermination waaw waaw luñ ko waxal xale yi xam nga xale yi dañoo gën a mm-hmm. xam nga moo tax ku fi politiquer politique u démb boo deful ndànk di nga am jafe-jafe parce que ñoom ñëpp seeni wax démb fi léegi mm-hmm. xam nga bu njëkk bi danga nga daan taxaw fenn wax dara maanaam boo deful ndànk sax après mën ngaa woo télé ba wala rajo ba ne ko élément boobu ma waxoon de jaratut muy jàll wala fexe leen koo éliminer ko dégg ngeen supprimer leen ko mm-hmm. mais léegi yow li ngay wax danga koy wax léegi booy yi dañ koy garder tee mm-hmm. ñu ngi li xaar rek bés bu wax ji di waroog li nga xam nga gis nga tey jii mm-hmm. su ma toogoon fii daal di soppi kaddu ci saa si ñu génneel la leneen loo xamante ni bi waxoon nga ko donc moo tax nit ñi nañu xam ni jamono jiñ toll nii moom Euh, booy duñu xaar ba dem yomal xiyaam ñu lay soog a tegalaatal say kaset fii lañ lay tegalee say kaset bari waaw ne la balaa ngay yegg yomal xiyaam <laughs> ah. yow kaay yow ñu leeral say mbir kon ah. sunu borom bu la waxee ne la yomal xiyaam lu waaye waxoon di nga ci jaaraat defe naa ni vaar yi moom dëggal na ko mhm. wane na ni moom képp koo xamante ni doxalee nga neneen mu mm. wuteeg ni nga daan doxalee mm. la nga waxoon di nga ci jaaraat danañ la ko tegal nga ciy jaar doo ci mën dara say njaboot di ko gis te doo ci mm-hmm. mën dara kon boog nañu rafetal mbir mi te xam ni li ñuy xëccoo mm. réew mi la kon yow mi koy wut war ngaa sell waaw war ngaa sell tey war ngaa mel noo xamante ni bii tey waroo dégg téel ne damm na parce que li ëpp solo mooy nga respecter enquêteurs yi mm. parce que enquêteurs yi mënuñu di enquête mm. ñu lenn mm-hmm. yow nga bëgg ne lii la loolu yabaate la mm-hmm. voilà d'accord mi ngi noonu ñu bàyyi nga tàggatoo waa di tàggu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm mm-hmm. di am mbégte ak bànneex saa suñuy ñuy jàkkaarloo ñoom ci l' émission des émissions. voilà mi ngi noonu l' émission des émissions di jaajëfal képp ko xam ne rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel di ñu suivre wooy leen di abonné ci suñu ay plateforme di jaajëfal itam Modou Diouf Abdou Top Abdoulaye Diallo ñi nekkoon ci technique bi jox leen dig daje beneen leen di ci l' émission des émissions.